rahmaani rahim suñu vidéo bi weesu ñu ngi ko def ci askanu yonentu sallallahu alayhi wa sallam ay maamam ci wàllu way juróom wu góor Seydina Abdullah ñu ko defee woon ci al madina al munawara ci digg jàkk yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tey na ñu ngi nii ci barabu juddoom ci alkaaba al musharrafa fas yéene waxtaane ay maamam yi fare ci wàllu way juróom wu jigéen Ndey Aminatu mi nga xam ne moom lañu xam ci zahratu quraish di taaru quraish gën cee rafet gën cee baax waaye gën ci juddu alayha ridwanullah bàyye mu ngi tudd wahab doomi abdi manaaf doomi zuhra doomi kilaab ibni murra ibni kaab ibni luway ibni ghalib ibni fehr ibni malik ibni nadr ibni kinaana ibni xuzeyma ibni mudrika ibni ilyas ibni mudar ibni nizar ibni maad ibni adnan nga gis ne moog Abdoulaye kon ñu ngi tasee ci kilaab kilaab moo jur Zuhra muy maamaati yonantu ci wàllu yaayam moo jur Xusay muy maamaati yonantu sallallahu alayhi ci wàllu baayam Xusay ak Zuhra ñoo bokk day ak baay seen yaay mi tudd Fatima bint Saad ni nga xamee ne nag yonantu wàllu baayam yëpp ay sang lañ naka noonu wàllu ndeyam yëpp ay sang lañ wahb mii di bàyyi aminatu moo doon sang banu zuhrata ci jamonoom ni nga xamee ne abdul muttalib mi jur abdoulaye moo doon sang banu hashim